salaamaaleykum dalé nak jamm ci xarala Academy. mbokk seen xarala academy duñ top suñu tutoriel tay dañu ñëwaat ci lu am solo eh, mu nekk benn parti boo xamanteni même bu dul jàngoo kese mais dafa intérêt surtout surtout Python parce que yàgg ngeen dégg Python ñu naan décorateur wala nga ñëw si benn eh, site wala benn eh, application nga gis ñu def arrobase ci benn fonction am leneen luñ bind fii voilà li lañ naan décorateur en ah, Python benn code la bu simple boo xamanteni ni day modifier comportement ou benen fonction voilà comme par exemple bu fini un décorateur est une fonction qui modifie le comportement d'autres fonctions voilà modifier comportement ou une fonction mu jox exemple fini mu variable bu user Olivier Vous def décorateur fonction mu fonction bu def autre fonction ci décorateur fonction bu afficher action refusée mu if user égal to euh, Olivier autre fonction mu ne fonction bi euh, utilisateur bi retourne bu c'est vrai mu retourner la euh, c'est pas vrai mu retourner la fonction ok tax décorateur def do 12 print exécution d'instruction voilà simplement mais si Django au lieu ngay def code bi yëpp di bon am na jàngoo ay décorateur yu bëri yoo xamante ni mu ngi si Python maanaam mu ngi si jàngoo léegi boobu lañ bëgg loolu lañ bëgg implémenter parce que décorateur yi c'est c'est important surtout bu nekkee ni da nga bëgg xam utilisateur bi connecté woon wala connecté wala page bii nii dañoo bëgg a def ni ku connecté wul du ko mën a gis ba c'est-à-dire page contact ak page contact de détail bi ok léegi pour ñu def loolu dañ koy importer pare léegi pour importer benn décorateur c'est simple eh, man nga ñëw ni par exemple nga def eh, from sama clavier bi mo mo ngi mo ngi def def de ok xam importer fi ok nga def from django point contrib point off point off voilà mo nekk ni point décorateur gis nga nga def import mais décorateur ñun benn rek lañ soxla mooy login required léegi xamal leen ko si documentation bu jàngoo bi ngeen xool fii beneen par exemple fii nii euh, ma def euh, jàngoo decorators moo nekk nii view decorators moo gis nga moom la indil nii comme gis nga ñoo gën a gis nii quoi voilà mën nga dugg si site bi tamit pour nga lire ci yeneen exemple mën nga def tamit langue FR wala langue boo xamante ni moom nga comprendre ok léegi premièrement pour appliquer ko nak ngay def da ngay def fii arrobase nga def login required léegi lu la wax mu login required day jël beneen fonction voilà day jël fonction day jël tamit login urls mais benn nekk si obligatoire léegi ñun ban lañ bëgg def login urls rek lañ bëgg a def fii quoi voilà léegi ñu def ko login url comme moo nekk nii gis nga léegi da wax ban page ngay authentifier sa utilisateur yi bon pour le moment amaguñu page su mais après nañ ko créer parce que amaguñ ko léegi ñun dañoo bëgg ku ñëw ci page bi te connecté wul nga ñëwaat koy envoyé renvoyé ko ci page login la ñu defaat ko fii nii ok léegi ñu xool ndax bu ñëwee site bi la indi page da koy garaawul parce que foofu amul décorateur. page contact am na décorateur mais lu tax man ma mën a connecté wu mooy dama xam ma déconnecté wu ci waa nii voilà déconnecté wu naa mu duggaat site bi xool page bu njëkk bi day dem amul benn problème léegi page contact nag ma duggee voilà gis nga fu ma indi login mais login bi existé wul moo tax mu daal di affiché page 404 si vidéo bii di ñëw di dinañ leen wan nag ngay authentifier benn utilisateur. Merci, bye beneen ci benen tutorial.